ربنا على الذي به لنا الهدى بنا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بنا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني اليوم ذو توسل له بأسماء ذوي التفضل فقلت يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بي نفسي هذا يا كريم وهب لمن بي يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم اغفر ذنوبي واغفر الرجيم وكن بموسى وبجاه عيسى واقيني دنيا واخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar baax longali Maam Mor Diouf bu daayira Matlabul ni muy daayira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem doomi dongay suñu bilaat di ak soppe mu mel ni tey dañoo ñëwoon di siyaar si ku tedd gi Serigne Sidi ibnu Serigne Abdoul Ahad yàlla na fi yàgg lool te wér mu mel ni daayira Matlabul Fawzayni mooy lan ak lan moo tax mu sosu day daayira bopp mi ngi sosu ci taw ku tedd gi Serigne Abdoul ndax dafa boole woon sunuy waajur ñu nekkoon ci daara ja ko liggéeyal ba am ngërëmam ci kaw lool nag leer yi nga xamante ni ñoo sosoo ca liggéey boobu ñoo taxawal daayira bi muy daayira Matlabul Fawzayni waaye turu Matlabul Fawzayni ki ko tudde mooy ku tedd gi Serigne Sidi yàlla na fi yàgg lool te waaye ñu ngi ko sos ci at mi ñuy wax 2014 muy sosu gu mujj gi waaye bi ci mbokk yi xalaatee ba dëppoo ci ci kàddu ci lañ dikk ci ku tedd ki Serigne Sidi eggee ko xalaat bu am solo bi nga xamante ne am nañ ko ci liggéeyal ku tedd ci kaw loolu ci la ko tuddee mat tudde Matlabul Fawzayni bi mu ñu ko tuddee ba pare lam ca teg mooy na ngeen ko yaatal ba fépp foo xam ne taalibe suñu laat nekk na fa liggéey ba egg fa bam ñu ko waxee ci lañ dem ci mboolem këri Serigne Abdoul Ahad yi biñ demee ci ku tedd gi sëriñ Seexuna moom sëriñ Abdul Ahad mu am ci mbégte bu baax a baax waaye daal ci sant bu baax waaye daal ci ñaan bu baax a baax waaye daal di joxe ndigal ci ni nañ yaatal liggéey bi waaye moom ci boppam mu ni liggéey bi na ngeen ma ci bind te li nga xamante ni membre yi ci bokk sosoo nañ ko man dinaa ko sosoo waaye daal ni na ngeen ko yaatal ndax képp koo xam ne nar naa am tawféexi Sëriñ Tuubaa dina bokk ci liggéey boobu tawféexi Serigne Touba jooju nag moo tax mboolem murit yi ànd ak ñu liggéey waaye ñu doon ay jàmbaar doon ay boromi pëstéef doon ñoo xamante ne xeeñtuwul lenn lu dul ngërëmul ko tedd ki Serigne Touba waaye daayira man lawul foo sëy ni nan lay doxe ak ci lan lay dox daayira man la foo sëy ni lu njëkk ci li muy dox mooy bañ génn tool bi nga xamante ni jur yu tedd ya nekkoon nañ ci nga xam ne liñ njëkkee ci seenu liggéey muy fexe ba ta Serigne ni mu bëgg ab taalibe mel ni ñu mel noonu muy yar ci seeni jëmm ci mbaax ci ragal yàlla ak nangoo jaamu suñu borom tey jëfe ay ndigalam loolu moo jiit ci seenub liggéey ba ca topp danañ def ay sociale maanaam di jàppalante ci seen biir waaye di jàppalante jëmee ci mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ak seeni waajur yi ci daara ji mu mel ni lu yàggul rek euh, bi nga xamante ni jàngoro jooju ñuy wax coronavirus amoon na am nañ liggéey bu am solo boo xamante ni defoon nañ ko ñoom waa daayira Matlabul Fawzayni muy jënd ceeb bu yaatoo yaatu topp daara yi ak mag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci euh, euh, daara Sëñ Abdou laat doon leen ko yóbbul waaye bañ ko defee ba agsi ci Serigne Abdou Sidi yàlla na fi yàgg te wér lim ñu xamal mooy loolu ngeen defkat mooy màggal gi loolu moo tax bis boobu saabu agsee ñu koy dundal waaye ñu koy yeesalaat bis boobu démb rek lañ ko doon def muy bis boo xam ne dañ ci amal wàccee kaamil waaye dañ ci amal njàngum alxuraan waaye la daayira Matlabul Fawzayni lii dëgg-dëgg yi yitte ji wala muy miraakal bi liñ ko mën a waxee muy loo xamante ne kenn nemmeegoo ko ci daayira ndax daayira Matlabul Fawzayni doxin wi njëkk muy ay carte membre waaye seeni carte membre bokkut ak carte membre yi nga xamante ni nit ñi xame nañ ko ci liggéey bi ñoom ana lan mooy seeni carte membre seeni carte membre mooy kenn ku ne ku bokk ci liggéey bi da ngay jàngal ku tedd ki Sëriñ Abdul Ahad ab kaamil léegi bin dajalee lim yi nga xamante ne ñoom mbokk yu sell yu tedd yi jàng nañ ko mu ngi toll ci téeméeri kaamil ak nàngam waaye ci limu xasida yi mënuñu ko nos ndax bari nga xamante ne lu takkoo takk noonu lañ jànge ay xasida def ko addey Sëriñ Abdul kon ku tedd ki lii mooy daayira Matlabul Fawzayni ci loolee lay dox ab doxam nag génnul Sëriñ Abdul Ahad waaye génnul Sëriñ Tuuba lépp loo xam ni jàpp nañ ne buñ ko defee dina am gërëmu Sëriñ Tuuba ca la ñuy xëy ca loolee la ñuy gon kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah